élection dina am ci Sénégal gii dix-neuf yi Sénégal ne leen kaay leen ñu waxtaan ci ni ngeen di defee campagne bi lees ci bëgg ak lees ci war a wattandiku yéen dix-neuf candidats yi ku ci nekk am na ñetti minutes yu mu war a wax ak sénégalais yi ci RTS li ci des nag nu ngeen xam boote seen doom ci weeru koor lay tombeel donc pas de mbumbaay nii de xumbaay nii de rumbaay lañu ne daa takk biir euh, tribunal bu ndakaaru am journal bu bind ne salle archive ba moo tàkk am beneen journal bu bind ne déedéet salle archive ba tàkkul de fañ def matériel ba moo tàkk waaye daal tàkk-tàkk ba nee nañ la ko indi mooy ab gaz bu explosé senegal amul gouvernement ñaari fan a de la république Sidiki Kaba li ci des yëpp forage dal luqadeen bul jaay garaaw naan bonne fête de la femme wala non les femmes je di joxe ay fleurs du ay chocolat du lii de 8 mars pour àq ak yelleefu jigéen ñi la ci àdduna bi jigéeni Sénégal nag am nañ bis mooy 7 mars mooy bisu talaatay ndeer bés ba njëmbat mbóoj ak jàmbaari jigéeni ñi waale yu duggee ca néeg ba taal néeg ba ca seen kaw ndax bañ gàcce attention Aliou Cissé yokku na euh, entraîneur u ba deux mille vingt cinq te fëgg dënn ba nag ne ay xamoo dara yaa yàq ma loolu dafa trop c'est trop Modou